asalaamualeykum wa rahmatullah waa Lu Xew TV maa ngi nuyu tous les internautes di leen jox seen wàccuwaay waa ñuy wax ci affaire xaj boobu nga xam ne dafa gaañ taalibe bi muy pitbull boobu ñu bugg a wax ne nit ki xanaa yow jàngul ne àqu dëkkandoo dafa am parce que xar sax boo ko yaree da nga war a def des normes sécuritaires yu wóor ndaxte am na xar yoo xam ne day mbëkke gis nañ fi ba tàyyi ku xaram mbëkk ba mu dee xar muy mbëkkee sax bu yow boo ko yaree mu soxor da ko war a kii euh, euh, xëy na xar moom daf lay mbëkk sax mais du la màtt mais xaj di la màtt di la déchiqueté daggati yaramu xale bi yëpp loolu moom ëpp na te d'après les gens ce qu'ils ont nee nañu même les maisons alentour la ne sont pas en sécurité te àqu dëkkandoo dafa am nit ki dafa war a moytu àq cohabitation dafa difficile am doom ju weex sax di xeex ak nit ñi sax problème da waxantuma laa xaj boo xam ne bu la jàppee dina la déchiqueté yàqate sa yaram yëpp yëpp yëpp ku dégg ni mu def taalibe bi rek di nga am xol dagg-ñagg di nga am du la metti boo juree doom rek di nga am du la metti parce que loolu wax dëgg yàlla jaaduwul te d'après ce qu'on dit les gens nee nañu même buy xuloog nit sax daf lay eh, eh, jal xaj yi pour ñu màtt la mais loolu tamit xam nga ne loolu beneen problème la te xanaa man je pense que élevage yu xaj surtout des euh, ay ay ay xaj yoo xam ne race yooyu la nga xam ne dañuy gaañaate je pense que war na demander une autorisation surtout suñu kër yu xaj yi xam nga ne am na yenn yoo xam ne xaju fa il paraît que am na ay xar sax yu mu rey mais même bu reyee ay xaru jàmbur sax problème la waxantuma laa gaañ nit te munoon na rey xale bi te kenn xamul sax fan lay mujj ak yooyu moo tax nit ñi tamit war nañuy seet seen digganteeg yàlla cohabitation du lu yomb te àqu dëkkandoo dafa am te defe naa ku nekk waroo nangu gàddu àqu doomu aadama surtout ci weeru koor gi ñu nekk nit ñi nag ñoom léegi dañoo dem ba seetatuñu li jaadu seetatuñu dara li leen neex rek ak seen bakken la ñuy topp mais àqu yàlla dafa am te àqu dëkkandoo day toppee ku dégg li si yonent bi wax lépp dinga nga def très attention mais di moom wax dëgg yàlla ëpp na te autorités yi war nañ ko saytu xool ñeneen ñu mel ni moom i tamit di def yu mel ni yii di yar ay xajak yu kenn xamul ñu jóg ceeki pexe parce que lii moom wax dëgg yàlla ëpp na te munoon na dal feneen keneen ku munoon ti doon it mun nañu kii il pare que sax abattre nañu xaj yi mais bu ñu ko defal woon aussi xaj yi ils vont continuer à attaquer les te loolu c'est te xaj bu soxor da ko war a takkal muselière à part buy lekk tout le temps da ko war di takkal muselière nga xam ne bu génnee du mën a màtt kenn mais nit ñi ñoom lu leen neex rek la ñuy def te comme moom daf ko def arme de défense kay noonu rek la mënoon demee mais nag ah mu ngi noonu de nit ñi daal heureusement que arrêté nañ ko te yoon jóg na ci. waaw vidéo bi ah am na solo de vidéo bi am na solo am na solo yarum xaj moom ci réew mi ñun am na luñ ci jot a dund am na luñ ci jot a dund xam nga ñun ay éleveur lañ. Euh, mun naa sama benn xarit boo xam ni euh, ay xar la doon yar yàlla dogal na mu yoroon ay xar yu bari macha allah amoon na jamono bii fa xarit di dugg di yàq gittam euh, am na xaram boo xam ne si sama benn xarit moo ko fayoon 10 millions la ko fayoon ci xar bi moom mu ni ko 15 millions la koy jaaye si samedi bi may bi may dem pour jubóole leen ñoom ñaar di leen woo pour ñu war a daje si dimanche bi waxtaan juboo samedi bi ci guddi la xar la xar bi la xaj benn pick pitbull rëcc dugg ci biir géttam keroog xar yëpp la lekk xar yëpp valeur vingt cinq millions la lekk si jour boobu pitbull baaxul de pitbull moom yaakaar naa Sénégal doo nga deses ci yar des ci ñu di ko yar te ma li ma jaaxal pitbull d'origine am du Sénégal kon fan lañ lu tax ñuy seetaan muy dugg ci frontières yi frontières yi dañu war a njëkk éliminer pitbull pitbull jëratul muy dugg sax Sénégal pitbull moom instant bi nii dañ ko war a éliminer Sénégal dañoo war a joxe benn déclaration képp ku ko yor ak foo mënti nekk koo mënti doon ñu éliminer ko Pitbull moom baaxul man moom dama jàpp ni Pitbull moom benn nit waru ko yor surtout nag nga di ko yar ci biir ay ay nit man dama jàpp ni nit sax warul xool xaj bu soxor di ko yar ci biir ay nit loolu dañ ko war a interdit wala bu fekkee ni mënoo ñàkk yor yor xaj ah, matuwaay yi mu laaj yëpp nga di ko joxe benn war nga am foo ko dëkkal ci kër gi ñaar war nga am dundam bu doy dundam bu doy parce que xaj yi seen dund dafa cher te gars yi dañ leen di yor ba pare jël ceeb bii di leen ko jox ay desu fas yeeg desu mbaam yeeg desu kii yi nañu yëkkati di jox xaj te xaj xamuñu lekk yooyu lekk xaj dafa am lekkam spécial lekk yooyu noonu ñu war a lekk tey ji buñ ko manqué fu leen deret xeeñ maara day taal musiba day am te te te pitbull mémoire am day dof day dof pitbull bu xasee am yenn âge yi dootul xam ne sax borom ak keneen moom Pitbull moom nañ ci yàlla musal moom man moom Pitbull moom vraiment ku koy yar moom damay jàpp nii moom dañu dañoo war a ñëw nangu ko nangu ko Pitbull moom c'est pas bon. waaw cheikh bi naka mu ngi si jàmm bu baax naka yi tey naka mu naka foofu lépp jàmm naka liggéey bi waaw yaa ngi may envoyé vidéo bi xamante ne si affaire yi xaj boobu big bu mais man dafa avant sax. maa ngi ciy commentaire ak sam benn copain parce que dama ko seetaan journaux loolu métti ma loo franchement daf ma métti pire parce que dama ne non ñun sénégalais bu ñu tëkkaawee suñu bopp ak tubaab yi les blancs parce que imagine toi tubaab xaj bu mu mënti am buy génne ak moom si place fu mu mënti doon daf koy soloy masque. daf koy solo masque ñun loolu dañ ko sàggane deuxièmement c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas normal xel wala xool antolu genre genre xaj yoowu ñu naan ay big bu xam ñu di leen yar si kayit si kër man nanguwuma loo parce que dama naa xaj yoowu xeeti xaj yoowu kenn waruñaa yar si kër peut-être si tool wala si beneen milieu quoi ay tool wala nga ubbi sa benn entreprise affaire yow xam nga ah, je suis d'accord mais pas parce que ay xar mënula tax bu jënd genre yi te majeure partie bi ñi si ëpp ah ñi si ëpp si genre yi xeeti xaj c'est juste que pour business ñi si ëpp genre yi xeeti xaj yoowu ñaa jëw di ko yar noonu c'est juste que pour business daa kaa yar euh, ba benn moment xam nga mu màgg tuuti bu jël ko jaay ko ab trois cent mille ou bien ab quatre cent mille wala ab cent cinquante mille te pourtant affaire bi du low gis nga pourtant bi du low parce que nit mën na business la ne ba mu des ay xaj comprend mais ñu bari en général business bi mooy cité mais man li ma li ma am ba wax ko ba di ko wax pour ñëpp ah pour ñëpp gouvernement bi ñëpp police ou gendarmerie et tout ñëpp moo la xaj yow kenn waruñaa yar si kër parce que du xaj ñaa yar si kër laa xamante ba songee mën na laa léegi si benn deux minutes ou trois minutes loolu dangereux comprendre kenn waru kaa yar si kër te du nga ñaa yar si kër man d'accord moom mosuma d'accord man moom naka jekk mosuma d'accord xaj yow ñu di ko yar si kër maa bañ sax dama deful ak ñoom nen nen fa mu ña siin ne am ne fa ma teggi demaat moo yoon parce que coon daka daa wax yàgg si yoon moo gën yàgg hôpital te man vie boobu yow dundee yàgg si yoon wi dox yàgg si yoon wi moo ma gën a fuuf ma yàgg hôpital gëm-gëm boobu moo nekk si man te fii boobu ma dundee mais nag franchement franchement man je suis pas d'accord xaj yow ñi di ñu yàq si kër je suis pas d'accord franchement